mbokk yi benn waxtu mooy door a jot asalaamaaleykum nu nuyu leen am yéenay jottali leen xabaar yi fa mel ne benn xabaar képp la benn tomb képp la moo di coronavirus bi ci lañ fas yenee dem Alassane Wade moo nekk ci xarala gi Sud FM Maodo Faye jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak ñun ci njolloor gi am na juróom-benn yu yees yoo xam ne itam wopp ji jot na leen alawteku fi nu toll nii gannaaw ba nga xamee ne nee ñu ci biir juróom-benn yooyu la juróom yi day dañ koo jëgg indi tàbbal ci mi kenn ki nag moom xëy na jëflante wala daal ku ku ku ko ñu wàll ko ko mu nekk nag fi nu toll nii boo xayma téeméeri nit ak juróom yoo xam ne yi wax nañ ne daal ñoom ñoo am tawat ji ci ñeen jot a xam fii ci biir Sénégal juróom-ñeent yi nag ñoom nee ñu fi nu toll nii wér nañ docteur Aliou Diouf lii la wax ñu déglu ko ñaar fukki fan ak juróom benn ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen yi nga xam ne moom lay weccoog yéen ci téeméer ak fanweeri test juróom benn positif nañ ci juróom benn yi juróom yi cas importé lañ benn bi nekk contact boo xam ne suñu service yi ñoo ko doon suivre malade yi nga xam ne ñu ngi leen hospitalisé Dakar Touba ak Ziguinchor ñu ngi am tan ci bésu tey bi dalee ko ñaari fan ci weeru mars am nañu Sénégal téeméeri téeméer ak juróomi yoo xam ne détecté nañ leen ñu positif ci téeméer ak juróomi yooyu juróom-ñeent wër nañu ba génn juróom-ñeent fukk ak juróom benn ñoo nekk ci ci yi ñu leen di traité ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di ñaax askan wi pour ñu wéyee tegtal yi nga xam ne ñoom leen di jox ñoom lañ leen di jox bés bu nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam loolu mooy li nga xam ne waa kër ministère bi ñu dénk wàllug wér-gu-yaram moom la ñu jot a rotal tey ji mu di juróom-benn ñu yees juróom yi dañ ko jëggi tabbal ci réew mi kenn ki wàlle ci wàllu jëflante loole loolee li ko sabab rek bokk na ci nee nee ñu daal nit ñi tam ñu ba léegi diggal yi leen joxoon ñu war caa mën a nekk ndax bu demee ci banlieue bi Eh, jafe na lool li nga xam ne wax na leen ko ñu ne daal képp ko xam ne kii da nga yóbbu ay nit ñaar nekk bu fekkente ne kalando yi ñaar doomu aadama lañ wax ne daal waaye nag ñu bari bari sax wegguñu loolu ndax chauffeur si am na ci ñoo xam ne dañoo yokk sax paas yi diggante Parcelles Assainies ak euh, diggante Pikine ak euh, gox yooyu nga xam ne moom moo jiite ak ba Parcelles Assainies lu mu gàtt gàtt da nga ci fay lu tolloog téeméeri dërëm El Hadji Moussa Thiam ñoo ngi ci garage clando bi nga xam ne moo ngi fii ci Pikine Ridis ca wetu pharmacie nouvelle foofee nag daanaka clando yi ñooy yóbbu nit ñi nag ba cité Soutiba te ak njëg li ñaar fukki dërëm dong la fii nag daanaka ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ñoo ngi jéem a sàllook digle yi ñu amal rek ngir yemale ñaari client ci oto bu ne ak chauffeur bi muy ñett Modou ñu ngi laa tudd maay chef de garage fii Ridis li wax de ah ñun de ñu ngi koy jëfe waaw ndax lañ leen wax yéen. ñun dañ nañu ñett lañu wax ak chauffeur bi muy ñeent. ah, ah loolu la ñu wax de loolu lañ dégg. pare gu ñu wax sax benn coow jóg diggante ñi nga xam ni nag ñoo di client yi ak coxeur yi nga xam ni nag dañoo jékki-jékki rek yokk njëgu transport bi daanaka daal foofee kenn déglootul sa moroom ñaan rek rek la moo ko war mais après li yëpp dafay jeex. mais day def parce que c'est pas normal. du yoon da ngeen di yàpp normalement jël ñaari place loolu mooy logique. Ah? la moo tax ñëpp kaat. waaw xëccoo ñu dañ ne ngeen dimbaluñu situation moo tax sorewu ko dara nag foofee la garage Parcelles Assainies nekk nekk ci Carrefour tali bu mag bi njëgu transport bi yokk nañ ko jamono ji nag pour dem Parcelles Assainies juróom fukki dërëm yu mu doonoon da nga si teg yeneen juróom fukk mu doon téeméer ngir nga mën a dem ah. mu doon yokk boo xam ne sax jaadu na ci kàddu yi tukkee soxna si nga xam ni fa lañ ko fekk nag mu ngi takk maskam ànd ak njabootam ñaari nit la ñuy ah, ak seen essence ak yëpp fii nag li nga xam ne daal digle amal ñaari client nag chauffeur bi muy ñett nag foofee respecté nañ ko bu baax ci kàddu yi tukkee ci Mamadou Fall bi nga xam ni moom la ñu woowee booy Fall di chef de garage bi. client moom day fay beneen client bi beneen passe bi pour méthode de sécurité. ki si test bi fay beneen plan oto bi dem. ba léegi mu ngi ñuy xamal ni rek jamono ji waxtaan gu tar am na diggante ñi nga xam ne nag ñoo di chauffeur yi ak client yi ngir wàññi coow li. ci bi day comprendre xam ne lii du yokk lii normal ñu ngi leen ak ak bu salaire parce que réew mi ñëpp ñoo ko bokk. na jot joti xibaar yi fii ci bande dakaroise El Hadj Moussa Thiam ngir rajo Sud FM. El Hadj Moussa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax alkaati yi ñu ngi def seen liggéey ci képp ku mën doon koo xam ne ki gis la nga yàpp lim boo xam ne bi dafa ëpp dañ lay daal di dindi ca mbuur Euh, bu ñu fa demee marché ba sax tey ji marché Petite Côte boobu ca Mbour tey ji lañ ko dal ne ràpp tëj ci suba ñoom sax jaa alkaat jàppoon nañ luy tolloog fanweeri nit ak juróom benn ndax ñoom fi li leen waxoon def leen ko bu leen génn ak yooyu moo tax ñu jàpp leen Babacar saw ngir jàmmaarloog coronavirus marché bu mag bi nekk ci mbuur daal dinañ ko upp ràpp tey jii ci fajar waaye takk der yi def li ni mel ginnaaw ba nga xamee ni préfet bu mbuur moo joxee ndogal bi di loo xam ne lii tey ji lañ ko tàmbali ci suba gi waaye nag daal dinañu seet ni ñuy doxali mbir yi ci béréb jaayukaay yi ci biir dëkk bi itam gis nañ ni boutique yi ak magasin yi nga xamee ni dañuy jaay upp nañ leen ràpp di loo xam ne lii nemmeeku nañ ko itam ci wàllu dem bég dikk bi ndaamar yi ñuy gis mbedd mi barewuñu suñu nemmeeko ni duñu gis benn client ci biir waaye dañ kumpa yi ak waaye taskati xibaar yi dong la ñu gis ci mbedd yi jamono ji ci marché bi itam bu weesoo altine talaata àllarba ak àjjuma bu ñu jullee fajar ba juróom benn waxtu ci ngoon dakkal nañu bépp yëngu-yëngu ci jab yi ñuy fàttali itam ci ndogal boobee ñi ngànk ndogali ci wàllu service d'hygiène rawatina waa kër docteur daañu gunge askan wi yeewoo ci Petite Côte di loo xam ne ni nag ni ñu ko gisee wuute na lu jëm ci wàllum couvre-feu bi waaye takk der yi guddik ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mars ci atum 2020 daal nañu engagé lu toll ci téeméeri élément GMI corps urbain ak brigade intervention daal nañ jàpp fukki ndaamar ak juróom benn nit ñi ñu teg loxo toll nañ ci fanweer ak juróom-benn ngir ñàkk sàmmoonteeg yoon Babacar Sow dañ ci jokkoog yéen fii ci Mbour pour Sud FM. li nga xam ne ci bérébu jaayukaay yi dañ ne kenn ku ñëw ku ne sa digganteeg fi nga taxaw bu dee da ngeen di rang lu mu gàtt gàtt ngir euh, doomu jàngoro ji ñu moytu ko na mat benn meetar ak lu ca toppandi sax day gën a baax ndax daal supermarché yi ñu fay dugg dañuy rang waaye kenn ku nekk da ngay taxaw mayel mat benn meetar keneen toppaat sa gannaaw maye lu mat benn meetar bu ko defee rang gi mën a dem ci ak piix loolu nag itam sax ñu baree bari ñu ngi koy wekk fintool yi ngir xeex covid 19 bi fintool yi ci Auchan ba nekk fële ci Sacré Cœur day mel na loolu ñu ngi ko fay bàyyi xel Aïssatou Gueye Ba Ba kon daan ci dikkat léegi gannaaw ba nga xamee ne euh, benn waxtu daanaka moo dem bay tolloog luy xaw a jege euh, fukki minute itam euh, ba léegi ñu demandi ci bërëb yi nga xam ne dañ fay jaay lu mel ne supermarché yi ak itam yeneen béréb it yi nga xamee ne fii nu toll nii nit ñi dañ fay dugg di fa am lu ñu fay jëfandikoo loolee nañ koy doxale mooy bu dee dañuy rang ngir tab bi ci biir fokk rek sa digganteeg sa nawle bi dugg ci bitik bi toll luy tolloog lu mu gàtt gàtt benn mètre Aïssatou Gueye Ba fayanto ngir rek moytu lawum feebar boobule mu nekk nag ab mesure boo xam ne ju ñëpp ko respecté ci biir supermarché yi ñu ngi fii nag ci ab supermarché bu Auchan fii ci Wakam boo yegsee nag daanaka ay gel hydroalcoolique la ñuy jox client yi waaye ren amu fi loolu nag dérangé benn yoon client yi ñu dajal. fajar gi nekk xam naa peut-être fii ba si kanam waa dina am ren man daal. si suba dérangé wu moom. ñu jëm nag fële ca Auchan bu Sacré-Cœur waaye li fa am bokkul ak fa ñu jógee ndaxte fii ba ñu yegsee daanaka ay vigiles ñoo ñu dalal fekk fa sax ay nit ñiiran di xaar seen numéro am génn ngir ñoom ñu mën a dugg def seen ravitaillement te neneen nag fii lu ëpp 235 personnes waruñu rek circuler bu ñu sukkandikoo si kàddu vigile bu ñu dajal. 235 personnes lañ demandé pour ñu dugg ci biir quoi. Uh-huh. waaw léegi d'ici ce matin euh, agent bi nekk ci porte loolu waaw non pour pour gën a kii rek pour protection nit ñi xam nga magasin bu mag la boo bëggee recevoir du monde comme ça bu yàggee rek euh, infection day am ci biir quoi. ab dogal boo xam ne arrangé wul benn yoon euh, client ñi yàkkamti waaye lu gën la euh, ci contexte bi nga xamante ne feebar bi mi ngi law ci min réew bu ñu sukkandikoo ci kaddu ñi ñu dajal. ren bi ñu ma laaloo pour man lu rafet la. parce que jamono bi moo demee noonu maladie bi mu ngi law donc il faut prendre toutes les pour jéem a aar nit ñi. ak feebar bi nii il faut ñu suñu précaution c'est normal xam Sénégal moom dafa xaw a doy waar dañuy teg ay critères ñu koy critiquer mais suñu jàmm yaram la ñu bëggal lii moom lu baax la très bien ab lawum wopp bi di Covid 19 tax kii di nguuru Sénégal daal di décréter état d'urgence fii ci min réew waaye doomu Sénégal yu ñu dajeel mel ni nag ñu jaaxle ci kaw feebar boobule law gi mi law ñoom nag nara rek jël bépp matuwaay ngir rek mën a mooy wopp boobee di E màggat yi nga xam ne nañ ci troisième âge romb juróom-benn fukki at yàlla jëm kaw wax nañu ne day ñoom ci seen bopp itam ñu ngi jël seen kem kaat tan ngir mën a wekk lépp loo xam ne aju na ci wàllu cet gi ak itam li nga xam ne wax nañ leen ko ndax tawat ji ñaare bu dee ci réew tugal yi ci bari bari màggat yi la gën a sonal Fatoumata Diallo. ngir nag moytu dajaloo yi ñu ñuy woowee personne du troisième âge ñi gën a féete mag ci askan wi ñoom nag dañu mujj bàyyi sax grand place yi ca noonee sax la sëñ bii di firndeel di lee kàddu teg ci ne mi ngi jël bépp matukaay ci wàllum set gi ngir moytandiku wopp gilee sama benn taye man ak ñeneen ñi fa doon tasee ñi nga xamante ne comme man dañ fay dajee ñu jullee ci subaar ba pare toog di naan ñu fa jógee rek dañ daan ku nekk da daan ñibbi bon mais fi mu toll leen nii njàngoro ji tax na ba léegi loolu dañ ko bàyyi daanaka waaw ndax xamul daal li xew parce que li li gën a tax ñu bàyyi ko ñun dañu xamatul li xew. sëñ bii tamit ñu taseeg moom biñ ko laajee moom mi ngi xam ne nag jota mayetu ko muy dem ca grand place yi. dematuma grand place. awma jot grand place dafa am jot waaw loolu moo tax dematuma bu weesoo nag grand place yi ñu ñuy wooyee troisième âge moo ñi gën a féete mag ci askan wi ñoom nag amuñu benn activité ca noonee sax jàngoro bi nag ni muy wéy di lawee ci dëkk bi ñoom nag nee nañ dañuy mujj di toog seen i kër ngir mooy tondiku dajaloo yi bëri yi syndicat taskatu xabaar yi SYNPICS ñoom ñu ngi doon yëkkati ay kàddu gannaaw ba nga xamee ne dafa am ay taskatu xabaar yu nekk ci waa Touba TV te ñu leen leen fële ca gannaaw ba nga xamee ne ñoom seen diggante ak alkaati yi waa Synpics nag di fàttali daal ministre bi ñu dénk wàll intérieur nag itam mu bàyyi nag taskatu xabaar yi nag ñu dox na mu waree tey tamit euh, gannaaw ba nga xamee sax léeg-léeg ñu jox leen ay kayit yoo xam ni daf leen di autoriser loolu Synpics nag daal nee na euh, patron presse itam war nañoo bàyyi xel bu baax a baax tamit daal ñu respecté ñoom itam couvre bi ni ñu ko tëddalee Maguette Ngondong secrétaire général adjoint la maanaam ci waa Synpics waxtaan ci ak Denis Samb jox na autorisation autorité préfectorale par exemple mu jox ay autorisation spéciale aux journalistes de pouvoir circuler loolu police war na ko respecter moo tax ñun loolu mën ñu ko comprendre et puis dañ koy condamner jusqu'à la dernière énergie ñu interpeller aussi tamit ministère ne aussi tey jii war na mën a euh, bàyyi tey euh, journalistes yi tey ñu def seen liggéey ndaxte bu dul sax ñi nga xam dañuy couvrir par exemple ci couvre-feu bi am na ñu bëri ñoo xam dañuy wàcc au delà de vingt heures ñooñu tamit il faut ñu euh, jëm leen préserver jëm leen en tout cas yëmbal seen ñibbi bu ñu fekkee dañuy wàcc ba ñu may ñibbi beneen bi nag mooy patron de presse patron de presse li leen laaj tey jii mooy dara jël ay journalistes leen génn ci biti ñu def ay reportage ndax li nga xam moom la ñu jël comme image daanu ko euh, sénégalais yëpp ñi nga xam dañuy nekk en tout seen balcon dañuy di filmer ñoom ñëpp dañ koy gis et di ko di ko partagé ci réseaux sociaux yi donc en temps réel la Sénégal yi di gis donc jàttul fi mu naan maa fi ne journaliste di génn di risque saa am amatul sens loolu moom dañuy yaakaar ne patron de presse dañ ci bàyyi xel ensuite les reporters aussi les reporters ñu leen la ñaan tamit bu ñu jël benn risque actuellement fi nga xam ne heure bi nga xam ne moom lay maladie bi nga xam ne moom lay coronavirus am ndaxte li ñu wax dafa leer maladie boobu buggul fi mu nekk ay rassemblement buggul tam ngay génn ci biti lu bari donc ni leen ñaan mooy buñ mënee toog seen kër dem seen liggéey moo gën a rafet moo gën a baax et puis moo gën a wóor ca Tëngéej moom euh, taskatu xabaar yu bëree bëri sax ñoom daanaka dañuy rek xaw confiné wu ndax daal wala boog ñi nga xam ñoo fa toogal yenn rajo yeek yenn bërëbu bindukaay yeeg yu demee noonu le ndax daal seen ay déplacement seen dem ak ñëw daal ndax daal li ko waral mooy xëy na sax rek euh, mbir mi ak xeex tawat jee tax ba sax daanaka ci réseaux sociaux yi rek ci lañ yemane dini sa samb Dakaractu ci taxaw na teem ngir aar ay liggéeykatam membre bureau bi fas yéene ni ñoo des seeni kër tey couvrir li nga xam ne rek moo mënta ñàkk bu ñu sukkandikoo ci Yaya Sissoko chef bureau Dakaractu bu Tëngéej. Dakaractu déjà ci direction nationale bi ñoom ñoo njëkk xalaat décider ni nit ñi dañu war di moytu déjà yenn regroupement yi fexe nit ñi def ba yenn liggéey yi nga xam ne nit mën na ko def këram parce que internet bi ngi fépp nga toog sa kër di ko fa def du tee ngay liggéey fii ci Rufisque dañoo décider carrément ñun tëj bureau yi kenn ku sa kër le plus possible maanaam duñu génn lu dul soxla bu jàmm ne mënta ñàkk ca siège journaliste yi nekk ca Sonadis lim gu néew ñoo fay teew bés bu jot bokk na ci li ko waral coronavirus bi Abdou Diouf Diagne correspondant bu RFM ak Cheikh Ahmed Tidiane Seck journaliste reporter Sen TV Zik waaw man na ma bokk daal dinañu jox ay ay xibaar di ñu xamal ne nañu wàññi nga xam ne moom lañ daan dem tey dem li nga xam ne rek moom moom mënul ñàkk loolu danañ ko fas yéene def pour ñu xam naka la ñu mën a moytoo jàngoro ji di coronavirus. déplacement yi moom amul wàññi wala ñu koy jéem a sax di xel ñaar naan noo ay kii dama ko dakkal di jëm ci li nga xam ne mooy li ittee am solo collecte information bi moom dañ ko limité ci li nga xam ne mooy li essentiel rek nan la ñuy def ba nga xam ne sénégalais yi wala bokk askanu Sénégal fépp fu ñu mënti nekk ñu mën a fàggandiku pour vraiment xeexa lépp lu jëm ci maanaam lawaay jàngoro bi quoi ci loolu rek la ñuy nekk pratiquement chaque jour waaye wàññi terrain bi gën liggéey ci xarala yu yees yi jumtuwaay yi nga xam ne moom la journaliste yi di jëfandikoo jamono ji du Diouf Diagne di dalal xelu auditeurs yi du dindi dara ci information yi nga xam ne nag war nañu koo jot jëm ci département wu Tëngéej. bu ñu waa Tëngéej te yaakaar na ñun dañu toog banque suñu ay loxo lépp lu ñu man ngir jox leen ay xabaar lépp lu ñu man ngir artu lépp lu ñu man ngir ñaax leen danañu ko def te toogaay bi du yàq na ne muy journaliste muy politicien muy kilifa ku doon mu mën doon Sénégal ñuy exposé te ñun ay Sénégalais ay nit leen rek te mucc mënuñoo mucc si loolu tamit moo tax fas yéene ñoo toog suñu kër wut yeneen méthode yoo xam ne daal ñi nga xam ne ñoom mbootaay lañ goo xam ne ñooy jàppale ñi nga xam ne dañ leen war a ci askan wi gannaaw ba nga xam ne dañ leen woon ci kaso yi wala boog ñu leen di bàyyi xel bu baax a baax ne daal njiit réew mi daa war a euh, ci kaso yi luy tolloog lu mu gàtt-gàtt ñaari junni ak juróomi téeméer yoo xam ne buur dafa leen a teg loxo rawatina ak mag ñi nga xam ne dañoo toll ci at yu baree bari te na ci kaso yi su ko defee eh, ak tamit ndaw ñi nga xam ne tam ak jigéen ñi nga xam ne xëy na war nañoo mën a génn foofu su ko defee eh, kaso yi daañu gën a féex tuuti ñu xool ne na nu ñuy def Ibrahima sàll moo jiite ASRED waxtaan ci ak Mame Diarra Dassiré situation bi situation bu da waar la ndax bu ñu xoolee fanweeri kaso ak juróom la ñu am si fanweeri ak juróom-ñaar maanaam euh, trente trois yi maanaam seen lim bi nga xam ne waroon nañ ko jël pees na bay tuuru donc kon li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yu mag yi nga xam ne seetlu nañ ko ci kaso yi mooy longue détention téye bu yàgg ak surpeuplement carcéral te feebar bi dafay bañ tàncaloo donc ñun foofu rek la ñuy yëkkatee suñu kàddu di ñaan ki nga xam ne nii moom mooy njiitu réew bi par la grâce présidentielle loolu prérogative bu njiitu réew bi la moom moo am sañ-sañu gracier donc loolu mënul xaar ba ay 4 avril mais situation d'urgence mesure d'urgence euh, la ñu war a jël loolu moo tax ñun ASREP ñu sàkku euh, si njiitu réew bi mu gracier lu toll si deux mille cinq cent détenus euh, mag ñi comme ni nga ko waxee mag ñi bëri nañ ci kaso yi ay nit ñoo xam ne seen at day toll si soixante ans soixante dix ans ba quatre vingt ans ñi ngi ci biir kaso Sénégal yi mais également xale yu ndaw yoo xam ne ay ay ay ay ay waxambaane yu ndaw yu am dix sept ans dix huit ans mais également jigéen jigéen ñi nga xam ne ñoom dañu néew doole ci kaso yi donc vraiment war nañu leen mën a bàyyi loolu dina permettre administration pénitentiaire mu mën a souffler mën a am longueur d'avance parce que vraiment tey seen problème bi gën mag bi leen sonal ci kaso yi mooy surpeuplement ak longue détention loolu moo tax ñu demander libération boobu immédiate parce que feebar bi gis nañ ne ñu ngi jël benn proportion inquiétante. ci Amérique moom boo deful ndànk ñoom ñëpp la ñuy dañuy confiné wu dugg ci kër yi rek ñoom ñëpp rek ne ràpp tëju. Euh, ndax da mën a ngir mën a jàggi róor wopp ji nga xam ne moom la ñu duppee Covid 19 ndax ci Atlanta nga xam ne askan wu bare bare ñu ngi dem ci bérébu jaayukaay yi ngir daal gaaw jënd rek laqatu ji seen i kër magasin yeeg yëpp ñuy jaay armée yeeg yëpp daal ndax foofu sax moo ne sénégalais yu bare bari foofu la ñu nekk Fatou Fatou Bari. feebar bii di Covid 19 mi ngi wéy di daal di gën a fës foofee ca États-Unis di dëkk boo xam te ne doomi Sénégal yi bari nañ fa lool. Atlanta doon benn gox foofu ca réew ma itam sénégalais yi bëri fa lool te mu doon gox bi gën a ëpp ay nit foofe ca Géorgie foofu itam dafa mel ni feebar bi teg na fa tànk ba Baba Diop doon doomi Sénégal di yeewoo foofe ca États-Unis lu toll ci juróomi at ci ren moom li muy gis fi mu toll nii daf ko sax yéem. dañoo wax ne euh, à partir de sept heures matin ba juróom-ñeenti waxtu ci guddi gi euh, loolu nit ñi mën nañ dem ñëw waaye bu. jékkee juróom-ñeenti waxtu mën nga nekk benn sujet wu police jàpp la wala ñu amande la te ñoom duñ kaf si loolu. comme niñ koy gisee ci àdduna bi yépp daanaka ci tànge daal dina dikkal doomi Amérique yi nga xam te ne bu ñu moyul ci li ñuy woowee confinement la ñuy jëm te muy kenn du génn sa kër looloo waral ba sax ñu ci bëri li ñu def rek moo di daal di jubali ca grande surface yi ngir jënd lu ñu dundee. d'habitude da ngay ci grande surface. doo fa def cinq minutes dix minutes li nga bëgg nga jël ko nga dem waaye bu fekkee ne da ngay ñëw taxaw pour rang rang bu gudd boo xam ne doo xam fan lay fan lay jeexee interne rang boobu mën na la jëlal benn quarante minutes trente minutes balaa ngaa dugg rek ci biir supermarché bi. waaye lu gën a jiital Baba Diop ak yeneen ci ay moromam leneen la ndaxte seetlu gi moo di ne njaayum gànnaay gi dafa yokk ba jéggi dayoo ci réew ma yépp surtout si Atlanta bi mu dëkk sa dëgg la nag que nit ñi ñi ngi jóg comme ni ñuy dem di utee saako ceeb wala ni ñuy dem di utee yàpp nit ñi ñi ngi fay jóg dem di uti pistolet di uti fetal. pour feebar bi di Covid 19 di wéy di fa lool ndaxte lu ëpp juróom benn fukki junni ci doomu aadama feebar bi daal dina feeñ ci seen yaram lu jege itam juróom ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay doomu aadama feebar bi daal dina leen faat mu mel ni gannaaw Chine fa nga xam ne fala feebar bi di coronavirus daal di feeñee daal di wàcc ca Europe de l'Ouest mel na ni ci xalaatu borom xam-xam yu bëri états fala feebar bi nar a gën a fësee ci fan yi ñu jëm ji dem ci wàllu tàggat yaram jërëjëf moom lañ ko leer rek wàllu covid 19 bi nga xam ne nag mooy ay di njàmbat problème askan wi euh, ginnaaw nag bañ tàkkee lépp lu jëm ci wàllu jongante ci tàggat yaram inspecteur départemental des sports bu Ndakaar nag mu ngi fàttali rek éducateur encadré football ñu sàmmonte loolu ndaxte kat fi réew mi toll la Aliou Kandji ñu déglu ko mu indi ci ay leeral euh, avant même circulaire u préfet si ministre de euh, ci lu am solo je crois que ci siège boobu aussi le préfet génn benn circulaire bon woo ma ni moo fexeel aussi que au niveau du sport surtout euh, ñi nga xam ne ni ay éducateurs sportifs la ñu ñu yore ay centre de formation ñu yore ay euh, ay ay école de football ñu arrêté bon à cette époque je crois que j'ai fait passer l'information malheureusement je veux dire y a certains qui incitent à à faire leurs activités et moi je les rappelle solennellement vraiment ñu arrêté seen seen activité parce que ñun xam nañu suñu liggéey dafa bokk ci luy dajale ay nit te loolu dafay favoriser euh, installation hydrochimique. def ngeen wax ñooñu ngir ñu dakkal rek seen yëngu-yëngu yi. waaw waaw duñ ci jóg parce que dañuy continuer parce que fi nekk nii phase de sensibilisation lañ comme ñun ay relais lañu. xam nga li ñuy dégg toujours ci suñu spécialistes yi mooy euh, mooy yi ak docteurs yi li ñuy wax ñun ñu ay relais lañu donc buñ ko waxee ñun ñoo koy jàllale ah donc ñu koy jàllale ñu ngi wax de duñu tay di ko wax parce que man dama jàpp ni ñun sportif yi ñoo war a njëkk a combattre affaire bu mel noonu ah parce que suñu liggéey dafa laaj ay daj ay nit ñuy daje suñu liggéey dafa laaj ay saafonte suñu liggéey dafa laaj diggante donc je crois que loolu moo tax euh, ñun kenn waruñu ci jiitu quoi et je crois que muy éducateurs yi muy euh, encadreur de yi ñun war nañoo jóg taxaw def benn bloc pour lutter contre ça et jàpp naa ni loolu ñu ngi koy def bon dañuy gën a ñaax rek parce que xam nga lu mel nii moom boo koy def doo tayal doo sonn quoi dañ leen di gën a ñaax ah ñoom aussi ñu nekk suñu relais au niveau de l' bi gën a suufee jógandoo àndandoo def benn tey pour daan euh, feebar bu bon bi. ñu wax ni ci jaraaf nag ñoom tamit jëlee ay matuwaay jox ay nag programme jour yi ngir rek ñu bañ a perdre seen forme waaye nag dañ ko xayma évaluer kat yooyu corosel moom moo nekk euh, Malick Daaf di coach bu jaraaf de Dakar ñu déglu ko. donc nekk na loo xam ne lu graaw la loo xamante ne takkantaan la bu la lu muy wàllee dafa gaaw et puis vraiment ñu muy duggee si dëkk aussi di yàq dafa bëri dem na ba nga xamante ne dafa touché même économie mondiale bi donc dem doon na lu doy waar mais comme ni ñuy wax rek adduna moo demee noonu ñun même sax affaire bi

defee ko ni ñu ko bëggee comme ni ñu koy waxee defee ko ni nga xam ne ko si noonu ko bëggee aussi surtout nga xamante ne di nga a nga xamante ne bañ a perte li nga ko liggéey c'est vrai que j'aurais préféré fi avoir l'équipe nous ensemble kon le groupe ensemble mun a liggéey mais li fi di dal ci àdduna lëbbi àdduna moo tax kenn mënu ko soo xoolee les meilleurs clubs au plus riches au monde ñoom ñëpp ñu ngi à la donc ñun aussi ñu tamit accepté li ne loolu la yàlla dogal quoi mais coach est yi waaw mais bu ñu joué quatorzième journée dañu waroon def benn trêve ci trêve boobu nag waroon am nañ temps pour évaluer pour def suñu évaluation ni ñu ko bëggee mais teewul man de chaque semaine bu ma joué pare damay def évaluation match bi nga xam moo passé noonu lay def mais évaluation générale bi ñu war a def kor ci première partie saison bi vraiment aw ma def koog sama jour mais li xew nag tax na nañu gën a xalaat gën a gëstu gën a lii gën a jàngat xool bu baax ba nga ni vraiment bu ñu dajawaatee nga xamante ni dinañu mën def évaluation bu yaatu bu normal et puis lu ñu fàtte yëpp dinañ ko mën a xam nga jël teg ko ci ci table bi ñu mën ci waxtaan bu baax ngeen mën xam nga dalal xelu xale yi wax leen li nga xamante ni loolu lañu ñu war a bàyyi loolu la ñu war euh, yokk loolu la ñu war a vraiment jàpp pour mën a avancer leen ci kanam incha allahu taala. di fàttali fi ba mu amee ba léegi nag yëf yi ba mu lépp lu jëm ci wàllu tàkk yaram dañu dakkal euh, ci àdduna bi yëpp nga xam ne nag yëf yi fi mu toll ni mooy li jëm nag ci wàllu Covid moom mooy ay di jàmbatage Maodo. jërëjëf El Hadj Malick jërëjëf Abdoul Aziz bokk yi ñu doon euh, teewloo tan jërëjëf benn waxtu moo dem ba fegoog luy tolloog ñeent fukki minutes ñu ngi leen di ñaanal jàmm.